deux kilomètres cent saxaw ga waaw ci euh, ci ñeenti ci ñeenti euh, axe lañ ko def euh, trente bi jëm saxaw ga muy deux kilomètres cent biñ ci noppee def nañ ñaari pneu moo xamante bi ne ni sept cent cinquante mètres la bi ñu noppee def nañu kii nu mu tuddati yoonu daaru nga xamante ne un kilomètre cinq cent la def nañu tamit trente kër sëñ ñaan Diop bi nga xamante ne un kilomètre de deux cent la ñeenti kii nu mu tuddati axe yooyu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 largeur yi ay 10 mètres la euh, loolu moo doon li nga xam ne mooy sunu emprise u euh, tali loolu loolu loolu la. Mhm. bu dee kër kë kër ñaan Diop. kër seen ñaan tamit euh, largeur bi 10 mètres la ñoom ñëpp ay largeur yu 10 mètres la mais chaussée bi ja 7 la. léegi foofu de xanaa li ngeen falal ci latérite li ngeen lal ci tout venant li ngeen falal loolu est-ce que mën nañ koo quantifier. grosso modo.